dali na jàmm ñoo àndi xëyër yéen i kay ñu xëyandoo yéen i kay gi di la soloy xëy duñu ñu diggante FMI ak Sénégal jamono ji maanaam diggante ba neex na ndax porte-parole bu FMI yëkkati nay kàddu bu baax a baax doxali na nguurug Sénégal ci lu jëm ci wàllum leeraange maanaam lu jëm ci wàllum transparence ak reddition des comptes kenn ku nekk la ñu la dénkoon nga indi ay leeral ñi nga xam ne ñuy waa FMI bu baax baax ni nga xam ne jamono ji moom la ko réewum Sénégal di doxalee waaye li nga xam ne FMI rafetlu ko mooy lu jëm ci wàllum audit général des finances publiques maanaam say tokk càmbar ni nga xam ne moom la yore amoon xëli réew mi ni ko nguurug Sénégal doxalee jamono ji waa FMI ci yéen kay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ci lu jëm ci réew mi daan wax ne moom tim kontaan ci waa FMI ci réaction bi nga xam ne FMI amee nañu ko ak doxalinu FMI ndax président Bassirou wax ne bi ñu saytoo Macky ak ñi mu àndal ni ñu yore woon réew mi bëri ay rëq-rëq yoo xam ne am na ci wàllu mal gouvernance loolee tamit nemmeeku nañ ko si maanaam yorinu bon boo xam Relais-sur-Humain yéene kay gi di Vox Populi xëy du ñuy ñu ñi nga xam ne ñu waa APR ñoom tim tontu nañu gouvernement bu Sénégal daan wax ne mbooleem li nga xam ne wax nañu ko loole lépp ay tuuma ndax ñi nga xam ne ñu waa Cour des comptes ñoo am sañ-sañ daal di li nga xam ne mooy ay siifara yéene kay gi di l'info ñu xëy fekk fa Abdou Mbaye mi nga xam ne jamono nekkoon premier ministre bu Sénégal daan nay wax ne Sénégal jamono ci ma ngi ci ay tolof tolof ci lu jëm ci wàllum économie maanaam Sénégal ma ngi ci benk ñenke loole kàddu yu Abdou Mbaye la daan wax ne bu ko jaree war nañoo mën a supprimer ay assange yu bare bari ci réew mi wala na sax ñu daal jaay li nga xam ne mooy avion présidentiel bi Abdou Mbaye daal di wax ne Sénégal réew la moo xam ne réew mu naqaree waxe la ndax da ngay def ay proposition ñu gàttandoolu ay saaga moom Abdou Mbaye daal di wax ne jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji am na ci réew mi li ko waral mooy njombe yi nga xam ne nguuru Macky Sall bàyyi nañu ko fi waaye nag nguuru Bassirou Diomaye Faye gi ñoom jamono ji maanaam dañoo soxla ku leen xelal ndax ñi nga xam ne jamono ji ñoo jiite réew mi mosuñoo prouver lenn ay wàcc bees lañu te nag ñoom si seen bopp ñoo war a nangu nit ñi ñëw daal leen xelal nit ñi ñëw daal leen dimbale ñoo war a wàcc yu Abdou Mbaye la daan nay wax ne ku xamul da ngay laaj yéenekaay gi di ñu xëy fekk fa Birame Souleye Diop ministre bi ñu dénk wàllum énergie daan nay wax ne ba am na marché gré à gré entente directe marché yaa ma neex yoo xam ne amoon nañ ci nguurug Macky gi toll ci ci milliards ci ay contrat gré à gré yéenekaay gi de la Tribune xëy du ñu xibaar naan ñu daan nay démissionné ci poste bi nga xam ne moom la ko nommé woon ci diwaanu Paris la Sall tekki na ndombal tànkam fas yéene ñëw ci réew mi daal di campagne yéen i foo xëy duñu xibaar naan ñu Macky mi nekkoon njiitu Sénégal dafa bëgg a wàcc ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal daal di koy ñàkkante i kayi gi di enquête xëy duñu xibaar naan ñu élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ay élection la yoo xam ne nar naa xumbuta dagaan ndax Macky Sall ak Ousmane Sonko ñoo nar a giita ŋaas ci terrain bi ndax nag Macky Sall dina ñëw ci réew mi loolee tamit ab laaj la Ousmane Sonko mi nga xam ne doon na fi menacé Macky Sall ak ñi mu lu jëm ci wàllum yoon ndax Macky Sall bu mbaxana doonee benn yéenekaay gi di yi nga xam ne moom la dëgmal li mu bëgg mooy gàtt sa gàtt sa ak Ousmane Sonko Macky Sall ak Karim Wade danañu ñëw ci réew mi battre campagne loolee journal bi di point actu moo xëy di ko xibaar yéenekaay gi di Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall dina ñëw ci réew mi te du am benn protocole Macky ak Ousmane Sonko ak Amadou Ba ñoo ko nar a ñàkkante ñoo nar a nekk ci terrain bi di gétt nga xam ne ñoo fas yéene la ñu koy fësal waa direction générale des élections tey jii la ñu koy fësal yéenekaay gi dale seeko xëy duñu xibaar naan ñu liste bi nag bu génnee dina bëri ay parti politique ak ay coalition yoo xam ne dina gën a pëccëxoo ndax jamono ji rek Awa mi nga xam ne moom bokkoon APR bàyyi na APR ngir dafa mer ba futu Abdoulaye Diouf Sarr jamono ji soxla na ndox mu sedd ndax Abdoulaye Diouf Sarr mer na ba maara détaillé yéenekaay gi dale quotidien xëy duñu xibaar naan ñu am na sax ñuy wax ne Abdoulaye Diouf Sarr mer na ba tekk ndombal tànkam ci parti bi di APR yéenekaay gi di bés bi xëy duñu xibaar naan ñu assemblée nationale bi ñu ko tasee bërki démoo njaay dañoo njortoon ne ñi nga xam ne ñooy député yi dañuy wéy di leen fay waaye nag salaire yu yi jamono ji bloqué nañu ko waaye du salaire yi rek la ñu bloqué bloqué nañ salaire yi bloqué nañ carburant yi yéen i kayi gi de la turbine xëy duñu xibaar naan ñu élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la ñi nga xam ne ñooy waa PDS dañoo lëngu ak ñi nga xam ne ñooy waa APR waaye nag waa APR gi bërki de moo njaay ñoo fi doon tuumaal waa PDS ne dañoo luubal alalu réew mi luubal ay milliards denc ci diwaanu Paris la France Abdou mi nga xam ne jamonoy Macky Sall nekkoon na fi ministre conseiller moo càmm def nañu scandale yoo xam ne toll na ci milliards yu fegg millions waaye nag Macky Sall ñi mu àndal ñoom tim jamono ji ñoo ngi leen di tuumal ay milliards yoo xam ne dañu ko luubal ci réew mi journal bi de la xëy duñu xibaar naan ñu jamono ji nag bëri na ñoo xam ne ñoo ngi xar seen tànk tubay ngir nekk député waaye li ko waral mooy immunité parlementaire la bëgg ci topp gi ñu leen di topp yéenekaay gi nag nee na loolee dafa yomb loola APR jàppante gi APR jàppante ak PDS bu ñu gañee li nga xam ne mooy élection législative yi maanaam Sénégal la dugal ci kawo Sénégal la dugal ci guuta te nag juróomi at yi Bassirou Diomaye Faye a gouverner te ñi la ñu tuumaal lu jëm ci wàllum luubal mbooleem ay projet de loi yoo xam ne président bi teg na ko bu boobaa dinañu ko gàllankooral te nag Sénégal bu boobaa dafay bloqué ci lu jëm ci wàllum économie ngir ni kay gi de ci xëlim ak Alassane daan wax ne ñi nga xam ne ñoo yore réew defee ñu mën a liggéey ba pare mën a appliquer li nga xam ne mooy réforme yi bu ñu demee nag ba seen premier mandat jeexa askanu Sénégal ñoo leen di sujet xool ba xam dañ leen a jox beneen mandat leen fii jëlee yéen gi di source xëy wax ci école police bi nekk ci diwaanu Kaolack journal bi nee na 49e promotion bi jamono ji nag seeni salaire stagiaire la ñuy juróom-ñaari weer yoo xam ne fayu ñu leen lenn yéen kaay gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi ne moom la ñu jagleeloon lu jëm ci wàllum set setal moom Bassirou Diomaye wax ak ndaw ñi ngir ñu toog ci réew mi ngir tabax réew mi yéen kaay gi de la Soleil xëy duñu xibaar nañu bëccëg bi nga na ñoo xam ne Faye ci diwaanu Mbour daan jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne jàngalekat yi yéen gi de enquête xëy duñu xibaar nañu njiitu réew mi daan wax ne dina yeesalaat lycée Demba Diop bi ci Mbour yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar nañu tey jii ubbite école bi journal bi di Walfadjri xëy duñu xibaar nañu bëri na école yoo xam ne jamono ji am na ndox waaye tamit bëri yoo xam ne amuñu ay toilette bëri na tamit école yoo xam ne amuñu ndoxum naan waaye jamono ji nag li nga xam ne mooy yell maanaam jàngalekat yi ñu yokk ko ci réew mi yéen i kayi gi da leen foo xëy di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun journal bi nee na Lat Diop Lat Diop mi nga xam ne jamono ji ma ngi ci kasu bi Lat Diop ma ngi ci dëcc ndax waajuramu góor a di El Hadji Codé Diop moo ñàkk bakkanam journal bi nag nee na El Hadji Codé Diop moomu nag ma ngi ñàkk bakkanam ci anam boo xam ne anam bu tiis la anam bu daw yaram la ndax doomam jii di Lat Diop bi ñu ko tegee loxo dañu ko doon nëbb waajuramu góor wii di El Hadji Codé Diop waaye nag ko ko waxee dafa daanu kirisa ñu jël ko yóbbu ko ci ab clinique fa la mujj ñàkk bakkanam bu ñu sukkandikoo ci ay jegeñaale la joppa yéen kay gi de libération xëy duñu xibaar naan ñu Aïda Mbodj mi nga xam ne moo jiite DER délégation entrepreneuriat rapide ay Mbodj jamono ji ma ngi kub xaalis ndax lu toll si juróom-ñeent ci milliards la gagaar gagaree yóbbu ko diwaanu Ziguinchor ngir nag financé ñi nga xam ne am nañu ay projet baolinfo.net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journaliste yu xarañ te mën seen liggéey baolinfo.net, le portail du Baol, sur le web.